gàmm gi léegi mu ñëw de gàmm gi ba gàmm gi nag bat ji léegi ku amul bat ji doo dugg kër bàyyi bàyyi ku amul bat ji doo dugg kër bàyyi kër Aziz Aziz Ndiaye hmm, incha allah yàlla yàlla nañu ko fekkee waaw alors mu ngi noonu mbay xam naa dañuy jóge foofu rek euh, dal di dem euh, ci ki nga xam ne dañuy desandi ci làmb ba tey euh, comme Baye Ndiaye ak Aziz moom coow li ñoo ko yenu fi mu ne Eh, ku ci benn ne Lamine Samba gis nañu tamit eh, coow li nga xam ne moo am entre ñoom mais nag man may balaa may ñëw ci loolu man damay njëkk a wax ci làmb ji ñuy jël di ko jaay tamit lu tax làmb neexatul mbay làmb da nga naan toog sa néeg toog sa salon. yow yaay promoteur teg sa gerte caaf. taxaw te de de yow yaay promoteur di seetaan taxaw yaay di ko jaay taxaw taxaw yaay promoteur bi na nga xam promoteur bi ku ko lu muy daj. déedéet. dina fay mbër bu nekk lu ma 10 combats. waaw nga fay ku nekk 100 millions. waaw. ah. Euh, frais technique frais euh, fay assad bi 3 millions. Mm. fay arbitre bi fay CNG. ah mm. fay police kii wéeg euh, sécurité beeg yooyu ah? joxe organisation bi lan moo tax du ko jaay. waaw yow da koy jaay kay nga ma ay kii waaye bàyyi li muy frais si kii bàyyi moom mooy frais si kii li nga xam ni mooy Baye Ndiaye mooy def li si li nga xam ne si si si programme ay millions yoo xamante ne. da perte du si yor dërëm. kii rek la bëgg a jàppale euh, euh, mbër yi rek la bëgg a jàppale waaw mbër yi rek lay jàppale. waaw léegi Lamine Samba. Lamine Samba est-ce que ni mu tontoo Lamine Samba moom Aziz est-ce que war na waxee noonu Aziz. nan la tontoo Aziz. Lamine Samba nee na daf ko woo di wax ak moom nee na mun na ko eh bu fekkee da nga bëgg a direct lamb boo ko directé dinañu couper sa signal. ah mais li ñu mais li ñu def dañoo waroon ta Lamine dafa waroon tàggoo rek. noo tàggoo daf ko daf ko woo pour wax ko loolu mais avant muy eggal nee na la ko wax loolu. ah mais est waroon na ko tontoo noonu quand même. mais Lamine na comprendre parce que génn si bàyyi si boppam moo génnul woon si combat bi combat dafa métti soo si génnul lu la neexee da dangay tàng. Ah. soo génnul si combat da ngay tàng soo génnul si combat da ngay tàng. ay millions ah, mais may nag stade stade. billet yi billet yi ñuy jaay ñoom mënuñu génn ci làmb ji. non non billet yi yenn saa yi. sponsor yi. ah sponsor yi tamit moo moo yi ñoo bëri. li ñuy fay si combat yi loolu moo tax ñu jaay làmb ji. waaw ah. moo tax ñu koy jaay. waaw ah, moo tax neexatul léegi parce que léegi déggoo li ma wax sànq da nga doon toog ci sa sanoon yi teg sa ndox bu sedd teg sa gerte caaf ay dog caayen bi ngeen toog seetaanandoo riirandoo mais léegi loolu amatul quoi. xanaa xamoon su amoon télé ah. Mhm. su ma kuy seetaan sama télé da ngay joxe 1500. sa kër su nekkoon am naa télé. waaw ba ñëpp bëgg ko. Mhm. su ko ñëpp bëggee damay dagg kenn dootu ko seetaan dugal sa dugal sama courant ñuy jël si courant bi. 1500 ma ma leen ko yombal. doo gaaw a am télé. waaw. baax na TFM xanaa xanaa xamoo TFM TFM teeloon na ay jamono yoo xamante ne loolu la yoroon def ku seetaan TFM da mil fay cent ah mais nii nii nii mënu mënatuñ ko def léegi TFM. non non nii nii bu njëkk ba comme si nit ñi ni ñu ko bëggee woon yooyu xam mooy loolu. léegi nii nii bëggatuñ ko. bëgg nañ ko sax mais xam nga rek fu bu njëkk ba bés bi ak yooyu. waaw <laughs> TFM bëggatuñ ko léegi. non bëgg nañ ko sax mais. bi doon ma dimbale zumal ma tànki mbay yi. dimbale leen ma rek ngeen zumal ma ko parce que mbay ni muy waxee nii man mbay xam naa foo jaar fu ma jaar zuma ni bi sama xarit la bu def loolu ma bi ne tànk mbay tey la sa anniversaire lu baax rek ngay def tey la sa anniversaire lu baax rek nga war a def lu ñaaw bu si wax dara bi sama xarit nga eh yàlla nga am jëkkër ju baax wala am nga jëkkër amagul am nga jëkkër loo koy woyal sinon moo zum ta non jërëjëf bi ne sama xarit la. woyal ko sinon da koy zoom. ah oh, boo ko woyalut da koy zoom. non sama xarit la kii kay woon dara bi ne bi ne nga xamante ne fii si kër gi mooy réalisateur day jékki-jékki rek zoom la. xam naa ji ko saa saa day jékki-jékki rek. non def loolu parce que sama tànk li mu weexee ni kër fan fanta boobu laa jógee ba jox ko fii. fanta boobu jox la paas. jox ma paas jox ma dara. ah yow yaa Fanta boobu sa xarit la yow noo mënee dem këram mu lay bàyyi nga ñëw te jox la. ceeb danaa doon wut si damaa xiif xëy dox ba sonn yoruma lu ma añu ma ceeb yi jeex ma dem këram dara. dox demoo kër Aziz. kër Aziz tey tey dem chaque jour ngay añu kër. kër Baye Ndiaye ah chaque jour ngay añu kër ba kër Baye may yow la te dañuy Baye day teel añ. Ah. léegi yow bis nekk tey. Hmm. bis nekk tey boo xiifatee. Hmm. da ngay dem restaurant Abidour bu nekk ci corniche ba. foofu boo demee la jox nga lekk ba suur soo ma waxatee ma porte la plainte fa demee dinañ la jox mbay nga lekk sérieux Aby Ndour dina la jox mbay nga lekk kii ko xam nga euh, yi nga xam ne nu ñuy seetaan mbay ku ne xam ne ne dafa dem restaurant Aby Ndour boobu foofu mu dàq ko mbay nag tey bëggoon naa nga leeral ñi nga xam ne xëy na comprendre wax nii laa xamul kan la fan nga demoon ñu dàq la kan la fan nga demoon ñu dàq la fa nii xaw ma ko de ankay ah, xaw ma ko mbay am na foo dem barki dem ñu dàq la mu ngi ci réseau yi xaw ma ko génne eh, la mu ko bi nag bu may ñu ko waay comme da koy weddi werante xuuxaan moom am na luñ ci wax fi nga dem ñu dàq la mbay mënoo di dem fuñ la woowee yow sa digganteeg yàlla rek ma dangaa gis ma dem fenn fëz waaw dama ne ndax mënoo di dem foo xam ne woowee nañ la ittaqullaaha ittaqullaaha fëz fëz ittaqullaaha fëz bàyyi li nga may def nii di ma toroxal sama biir dëgg nawle fu ma dem ah man damaa xam li ngay wax sax xaw ma ko ay eh, ay. Eh, eh, mm. njéeréer sama réalisatrice bi noonu la aaye léegi mu may ñu ko comme da nga koy. miir njéeréer ngay wax wala muus wala xaj yooyu yan tur la dama ne. Ah, fu ñuy dem dañ leen a war a yaatal du si man kese dañ leen a war a yaatal parce que seen vie lañu am seen vie yooyu vie yooyu lañuy lañuy dundee kenn jàppalewu leen man su nekkee benn téléphone bi laa yor kenn jàppalewu ma si yaay kenn jàppalewu ma si papa li may am ñu bëgg ko xañ damay rayanteeg yow. Youssou suy répété su daan répété ah. xëy na fonk ma moo tax ma daan toog tey laa koy doog a wax. Youssou répétition man rek maa fa daan dugg. Futurs Médias ñaata employé fa nekk kenn dafa sañ a dugg dugg fi Youssou Ndour di di kon fonk ma moo tax ak yëg.